العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسق إذا وقب ومن شر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 hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa khina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الله اللهم لا صلاة إلى ما جعلته صلاة وأنت تجعل الحزن إذا شئت صلاة اللهم نجينا ما نجينا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 ndekkee goo leen mais añ ngeen wala añagoo leen ah ngeen fay leen ma dégg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. aca fay leen nuyoo bi aca. idaa xayyitum bi taxiyatin fa xayyu bi axsan minha aw rudduha idan asalaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara amal mbégte lool. dellusiwaat ci bërëb bi nga xam ne daje woon nañ fi daaw ak at yi ko jiitu di conférence bi nga ne moom la Aly Aïcha kër Seydal Khalifa bi xale yi ci biir école bi di leen jàngal di def ci ñoom éducation bésu tay bi nag dafa muy symboliser ci école bi te mooy ñu taxaw fii woo xale yi ñu ñëw def ay prestation ci alquranul karim boo xam ne jàng nañ ko ak ci loo xam ne dellu na ci ay ahadis ak li dellu ci ay tawxiid ak li dellu ci nasid muy wóy parents d'élèves xam naa bari na ci ñoo xam ne tey seeni doom daa ngi tari loo xam ne buñ doon parent bu ko tariwul doo ñibbi dina bari ñoo xam ne duñ ñibbi tey te loolu bu ci kanamee su ma woowee yi ñu ba pare dina am parent xam ne

ñoo ngi ñaan ñëpp ak dal xale yi xale yi nañu wax suñu parents yi ñu ànd ak noppi ah yéen moom kenn duñu doon rek ndax yéen da ngeen a te seen papa yi seen yaay ñoo def ci éducation boobu école bi def ko ci yéen kon tey fii kenn du wax sa morom ne ko noppi kon sans plus ngi programme bi ak groupe 1 la ñuy commencé muy Oumou Diop Tamimou Ba Mariama Sarr Mouhamad Rasoul Doucouré Cheikh Tidiane Al Maktoum Diop ko la ko dem ak moom bokk tur bokk sari ana kan kan la ci Cheikh Tidiane Al Maktoum Diop yow maa ngi yow ñoo tur ñoo bokk sari d'accord macha allah ak Pape Djibril Souare Diallo Abdourahmane Frayola Oumou Lama Oumou Lamarana Diallo ak Oumou Mangasa anañu xool leen xale yi dañuy tàmbale ak ñun jàngal ñu alfatihatul kitab jàngal ñu suratul naasi suratul falaq ak suratul masad buñ paree ñu tàmbale incha allah laajee fii am nañu ko mënul yéen wax leen ko ba léegi tabbat yadaa bismillaahi rahmaani rahiim allah ñu def ci ñoom alquranul karim def na oh ana muslim Masya Allah, Masya Allah. Hah? Ayo, anak muslim. Dalilem batay ak wa petit section ni jangal mi Ana Ana Ana Ana apa apa nasi Quran karim awal nafsul fatihah nafsul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ah! Allah. Happy Diwali, everyone. Hi. القرآن الكريم أيوة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس إلى تكبير ما شاء الله خلي جانغرين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan naas yegsi rek jàmm madame Faye tàcc leen ko baax a baax a baax marhaban محمد Maka. Kalau saya Maşallah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. billahi. Allah. Ano yung mahal?

Bravo. Bravo. aouzu billahi min asheytan irajim لن وقتي طلب العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة. نجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوقوش قدرت وإذا البخار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصوب نزرت وإذا السماء كتبت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أقدرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبر إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ورب العالمين صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر الله اكبر جانغنا في صار بو ام سولو تي نجانغين مو سل تي وير تي نجانغين مو نيه تي سل خمغين ني بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء ايوه اعوذ بالله بسم الله إذا جاء أمر جلائه والصدق ورأيت الناس يدخلون في Kasabi, Berambela, Beka, Kasabiru, Innahu, Kala Tawaba. Takbir! Wakaran section. Fala que é. Carne de prestação, vou falar bem? Ok. Fala que é. Fala que é. Wakaran. ak wa sëy gën a xaar bis ayca ayca asalaamaaleykum wa rahmatullah masaaxul xayri kayfa antum ayna kuntum man hiya alhamdulilah léegi nag ñu commencé ci prestation yi door a jëm ci alxuraan bi incha allah ay ca bu leen laajee kuy seen buur bu leen laajee kuy seen yonent bu leen laajee luy seen téere bu leen laajee luy seen diine islam ci ñaari ponk lañ ko tabax bi ci jiitu mooy wa iqaamu wa itaayi wa sawmu wa hajul bu leen laajee lan mooy laa ilaha illallah la ngeen di wax te kenn sallallahu alayhi wa sallam yàlla ya Cikan fu mu nekk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu mu juddoo kuy yaayam kuy papaam kuy maamam kan moo ko kan nampal bi mu amee ñaata weer ci biir yaayam la papaam génn àdduna bi mu juddoo ni yóbbu ko fan ci nampalkat def nan moom ñu bàyyi ko foofu moo kan Alimatu mu yóbbu ko dëkk ba mam fa ñaataat mu dem ci àll bi mu dem fan ànd xale yi après Jibril daadi ne ko xale yi doon alimatu alimatu ñu ànd kan ñu dajeek muy ñëw di waa dëkk bi ne ko mu delloo ko ci yaayam ko nan dem fan fu bàmmeelu papaam nekkoon bi ñu dem Màkka ban dëkk la yaayam génne àdduna kañ la nu àndaloon may sara bi ko jëlee ci kan la ko yóbbu maamam Abdul Abdul Muttalib yar ka ba mu am at mu génn aduna juróom ñetti ah juróom ñetti juróom ñetti après ñu jox ko abu abu Talib yar ka ba may ko kan ñaata dom la mu na yaay Khadija limal len ñaar doomi góor ak ñeentu jigen ñaari doomi jigen ñaar ñeenti doomi jigen luñ tudon Zey Fatima Zeynabu waaw Roqaya Umu Kalsoom ak ñaar doomi góor ni ñu tuddoon Abdallah ak amoon benen beneen gor yaay Khadija juru ko numu tudon ibrahim ibrahim kan modon yaayam ma sha allah legi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam amoon sahaba. ñeenti sahabaam yi mu doon àndal yu ko gën a jege nu ah Babacar Sadiq Ali ibn Abi Talib Ousmane Noreyni ak Omar Bun Khatab ma habibi ya Rabbi Allah ya Rasulallah halbun bil haqqi ta'allam wa bi qali qiruqa ta'allam yabki yas'al qaliqahu fa'atahu al-wahyu fa'asram

Allah Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya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

قال رسول الله أي طلب العلم دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زين طلب العلم طلب العلم طلب العلم سقف العلم طلب العلم سقف علم

ما شاء الله ما شاء الله صار لو نقد مقال قل يا ايها الكافرون اه يم جامبار نيند نيمتي من كان يؤمن باليوم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر نيم من نينكو من نينكو ايوا بسم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وسلم من كان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر waaw léegi firi leen ko képp képp ku gëm yàlla gëm bési penc gëm bési penc ما شاء الله ما شاء الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لي يسمر بوغم يلا جمنا بس بنتي أمنا بس دينا نيو نيو تخاو تسنو كان مبارم بوي واخ نغا واخ يو سو يا نوبي واي مل مل مل مل مل باخوت ونيو أسر سارون المتفيقون amna ñoo xamne ñoo groupe na ñoo yëm muñ xasse ba départ duñ nopi te duñ wax farata kon nak jar nay ay wa merci beaucoup ñew leen ba dewe ak jamm alma micro bob yeen ñu jàng alquranul karim suratul kawsar muy bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kawsar ha ah? wa yow joxal joxal ba ki micro bi après ma gel ñu awantu bi dégg aywa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 فصل لربك وارحم إن سارئك هو أبدا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو أبدا طيب، تكبير إن شانئك هو الأبتر خسته يا قلبي خسته أنا نيو خمني خسته رك yonent bi gën ñëpp dafa am ñoo xam ne dañ ko daan ñaawal di ko xas di ko bu amee ku faatu sax ñu ne ko yàlla mi nga bëgg yàlla moo la teg li yëpp ba julli tabaski yàlla ne ko demal nga julli te nga sa gàtt waaye ñooñ di lay naan yow yaa yara dal yaa nekkul ku baax ñoom ñooy abtari macha allah ñu dem ci hadis حديث قلنا هل النظافة النظافة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان سد فبقى سجن يالله Masha Allah, Masha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. المسكين فويل للمصلين الذين هم عن الصلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم تكبير لا تأكل بالشمال أيوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل بالشمال فإن شيطانا لها جامع يملك لك ما شاء الله تكبير yonent bi la xale yi wax ne nee na bu ñuy lekkee bu ñuy lekkee ban loxo bu ñuy lekkee càmmoñ parce que seytaane càmmoñ lay lekkee kon booy lekk na lekkee sa sa loxo ndeyjoor بسم الله Rahmani Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Lilazim Inna tasira wa saifi Ayabudu Rabba Dabaiti Allah Adama Min Joy Amahu Min Hausi Hadis, ini kita bawa hadis. عليكم من تعلم القرآن وعلمه خير قال رسول الله بسم الله أولا وسلام mooy ki jàng Alxuraan ba pare, macha Allah yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ki gën ci nit ñi ki gën ci nit ñi moy ki jang alquran ba nopi diko jangale Bismillahirrahmanirrahim. بأستقبل على الرجل غير مؤمنة تدل كيف بابي تلميم إتجارة من صد فجعلهم مجمعون ما شاء الله تكبير الله léegi su ma yeewoo su ma nelawee ba yeewu lan laay wax

Madama, Madama, ما شاء الله سمعنا العبير لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لمزة الذين عملوا عددا شخصب علم له وعلا ألا عليه مزل في علماء وما أدراك ما علماء إن عليهم سدت في عمد ممددة ما شاء الله خيركم قال رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الله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 أمور السميع بصلاتي إذا بلغ أبر سنين أبر سنين بلغ أبر سنين أمره مجلس مجلس burun asabiyun bisalati iza balaha rabara silina rabara balaha rabara silina yabalizu biha at Rum jurumnya hari at juróom juróom ñaari at fukki at fu amee fukki at yo door ko mu wutu fuudiri Ashhadu an la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 ilaha illallah Asfadu anna Muhammad Rasulullah Ayyala salat Ayyala salat Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Agatu sumtakasun Kastabdurumaka كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون إن يتيم يكن أم يتيم ثم لتعلمون Hiti hati Umala masjid ya lah yang Mana Biraz yettim dune na yëpp xam aywa ñëw leen alma micro ba wala ay photo ah, jëlal ko nitaal ana Anta Diallo Anta Diallo Diallo jeeri Anta Diallo kay uh, Ibrahima Tiliba ana mu ana Fanta Seydi Mama Caba Seck ah ñëwul puusal ña puusal léegi xarit ñoom ma loolu la masaar yi mooy tey am na koy njaay dugg na ci guddi sori naa بسم الله الرحمن الرحيم القارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحارية ما الحارية وما أدراك ما الحارية ثانية يوم يقول الناس كالفراش مغصوص وتقول الجبال كالإن منفوش فأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حامية وما أدراك ما هي نار الحامية الله أكبر من صام رمضان Man sama Ramadan iman wastisaban koku filalahu ma tahaddama min zanbika wa ma ta'akkan dan macha allah macha allah yéen a ngi nee na képp ku war weeru koor sàkku ci yow ñu jiitu ak ñu yóobu ak ñu ko jiitu ñu ko jiitu ñu continuer Mouhamed Ndiaye. Fatou Dieng ana Mohamed Ndiaye yow la Mohamed Ndiaye kan la Mohamed Ndiaye yow la ab Ndiaye nag day bëri tiitër <laughs> pare ngeen yéen wàcc leen ñëw leen fii Mohamed Ndiaye euh, Fatou Dieng kan la yow la euh, mam jaara tin mam jaara tin anamu mam jaara tin anamu mam jaara tin anamu mam jaara tin anamu yaay mam jaar ah mam jaara tin anamu faale woo aywa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

Amin. Bienvenue ci école Ali Aïcha kër Mam Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñu dalal ñi nga xam ne ñoom la tuddee bés bi ñu dalal leen bismillah mën nañu yegsi madame Tine mom moy marraine bi. invité d'honneur bi. di madame Diop. macha allah. bisimilah. aleykum salaam wa rahmatulah. madame Tine na madame tin madame tin macha allah. bisimilah. xale yi tàcc bu baakha baakha baakha sant yéen bu baax a baax ñu dalal leen ak allah.

صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء يستكبروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم الله العظيم may leen ma tuuti yéen ay bismillah bismillahir rahman الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزل قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لها الحق قول على ألسنهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أسنانهم أغلالا فهي هي الأسنان فهم مغمون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسماء عليهم وأنزل الدور أم لم تنزل لا يؤمنون إنما تنزل من انتهى الذكرى فأحيا الرحمن بغيري فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم

Mayaina maina, nanapa matisa vendri, bangula, tumamage, dinalavegal vanavek, samayai, samayai, samayai, samakari. Samayai. Udah, kalau lu nggak ada. Samayai, namabal, samabal, namabal. Aku nyure gisnalan.

natureza, você está dando funcionar, funcionando, tudo completamente, natureza, sua amada. Lord, and I thank God, Namaba, Lord. aux parents d'élèves qu'ils ont mis leurs enfants en de bonnes mains pour une éducation et instruction de qualité. C'est le moment idéal, devant cette auguste assemblée, de renouveler notre gratitude et vous remercier de la confiance que vous portez à l'école Ali Aïcha, Cœur Serine Chers parents, Puissiez-vous vivre jusqu'à récolter les fruits de votre investissement sur vos enfants par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chères marraines et chers invités d'honneur, je veux nommer Madame Tin Anening, chargée de l'enseignement privé au niveau de l'IF des, Almadies. Madame Job Fatou, secrétaire de l'IF des Almadies. Votre implication, votre dynamisme votre bienveillance et votre professionnalisme auprès de l'IF des et auprès du monde de l'éducation de cette circonscription sont reconnus de tous. C'est ainsi avec joie et honneur que nous avons tenu à associer vos noms à cette cérémonie un privilège que nous, nous vous, avez, nous avez fait en acceptant cet honneur. Soyez-en honorés, très chers. Distingués invités, par ma voix, la direction, le corps enseignant et les élèves vous remercient de les avoir honorés de votre présence et vous souhaitent de passer d'agréables moments avec eux. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Merci. donc euh, ngeen may ma tuuti ma tënk ko ci olof comme ça mu leer ci bopp ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp donc euh, ñi ngi ñaanal madame Guèye fi mu nekk muy màkkatal mu karam yàlla nangul ko ajam te yombalal ko ko te mu ñibbisi ci jàmm fekkaat fi jàmm incha allah moom mi sanc école bi maa ngi sant di gërëm parents d'élèves yi ci seen kóolute di remercier aussi le corps professoral mi nga xamante ne dañuy investir matin di soir pour seen ay réussite doom ñu ngi leen di sant di leen gërëm te maa ngi ñaan ngeen leen may leen loxo bu baax ndax dañuy investir à 1000 pour cent ci seen ay doom. donc euh, maa ngi gërëm tamit sunu ay dëkkandoo ndax chaque jour ñu déranger leen waaye doo si gis kenn ku fi mës a ñëw di plaindre ñu ngi leen di sant di leen gërëm. commencé ko ci yaa Seyda mii nga xam ne suñu dëkkandoo la suñu doyen la moom nga xam ne daf ñuy teg ci yoon à chaque fois yàggul dara ci suba rek ci mujj <laughs> yaa Seyda ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di gërëm euh, maire Bari di gërëm euh, euh, suñu ay dëkkandoo ku lim juum waaye maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp comme fu mu toll nii nag waxtu bi dafa xat dañuy jox parole la marraine madame Tine Anne ñi ngi mi nga xam ne mooy chargée de l'éducation privés à l'IF des Almadies waaw choix bi ñu def nag defuñu ko pour dara mais dañu koo def juste pour sargal ko ndax dafa am fu mu jaar ak ñun dafa am nu mu jàppalee école bi dafa am nu mu jàppale école bi te école bu tollee fii moom loxo mi ngi ci biir loxo mu ngi ci biir te xaarisu woon dara mosu see séentu leen ndax xamuñu woon sax boobu bi mu ñuy jàppale donc madame Tine madame Guèye sant na la madame Guèye gërëm na la man mii di sa rakk di sa xarit comme que sa sœur nga may woowee tout le temps maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di sant itam madame Diop ci disponibilité am ci gentillesse am ak euh, euh, mind sense bi mu am maa ngi koy moom moom ñoo bokk génération merci beaucoup madame Diop ñu ngi leen di remercier ci teewaay gi ñu ngi leen di remercier ci lépp ni ngeen xam ne sonn ngeen ko si école bi jërë ngeen jëf merci Merci, Oustas. Euh, madame la déclarante responsable de l'école Ali Aïcha, Ababa Ababakarsi, Madame Aïda Diagne, Madame la directrice Awa John, Mesdames, chers parents d'élèves, chers élèves, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous, avec vous pour partager ces moments de joie que constitue la présente cérémonie de fête de fin d'année. Tout d'abord, qu'il me soit permis d'adresser humblement mes remerciements tout spéciaux à Madame Aïda Diagne, la déclarante responsable de l'école Ali Aïcha, Kersering Ababakarsi. qui a bien voulu faire de moi la marraine de cette édition. Cette reconnaissance me va droit au cœur, mais je suis encore comblée de joie quand mon ami, ma collègue, ma copine Madame Diop Nefatoussine, ici présente, secrétaire particulière de Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies, a été choisi comme invité d'honneur. Ensuite, je voudrais exprimer ma gratitude à tous nos illustres invités qui ont bien voulu effectuer le déplacement. Il y a Pour hausser de leur présence si distinguée l'éclat de cette cérémonie. Il est heureux de noter que la fête de fin d'année nous offre annuellement l'occasion de nous rencontrer, de nous retrouver, de montrer le talent des élèves, mais surtout leurs belles prestations. Et réaffirmer notre ambition de construire une école moderne, efficace et aussi former les élèves qui seront demain au service de la nation. À ce stade de mon propos, il me paraît important de marquer un point d'honneur pour saluer les efforts consentis par le personnel pour donner à nos chers élèves une éducation de base sur le respect de nos valeurs traditionnelles, que sont le djom, le kersa, le soutoureux, le foulak faïda et surtout ce dont on a besoin à ce jour, j'aime la paix. Aussi, voudrais-je féliciter la direction pour cette belle initiative, pour ces bons résultats obtenus qui résultent de la conjugaison d'un certain nombre de dispositifs mis en place. À l'endroit des élèves, tout en exprimant mes félicitations et ma satisfaction je voudrais vous inviter à demeurer des modèles. Sur ces propos, je voudrais clore mon propos pour en souhaiter, pour vous souhaiter de passer une bonne fête, de belles vacances, mais aussi loin des, loin des plages. Parce que nous avons constaté que dès la fin de l'année, on constate que les enfants sont tout le temps vers la mer et c'est pas sécurisant pour le pour eux donc Oussas, comme assistance bi ñoom ñi fi ëpp ay parents d'élèves lañ madame la directrice va me permettre de m'adresser euh, par des petits mots en wolof ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci sang-sang yi mouhamadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama ñaari waajur di ñaanal sama yaay mu yàgg fi lool te ànd ak wër di ñaanal sama waajuru góor fa mu ne gënal ko fii mu jóge di ñaanal waajur yu dëddu yëpp yàlla oyofal suuf seen kaw euh, euh, fañu ne gënal leen fii ñu jóge yaay yi fi desagun ñuy ñaan yàlla sunu borom mu bàyyi leen fi ñu toog fi yàgg fi lool seen kanamu njaboot ñu toog ba seen njaboot di leen jëriñ ñu toog ba parents d'élèves yi fi teew nii seen doom yi man leen ñoom ñëpp ñu muur leen ñu yóbbu leen màkk incha allah yàlla man na ko yàlla na ko def léegi moo bëggoon ci dolli quelques mots rek di remercier bu baax ma dem Aïda Diagne gis naa ne saa famille est là maa ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, tatagal dinaan kontaan naa bu baax ci cër bi mu ma jox. waaw parce que man mu xeebu mii am na ñeneen ñu ma ëpp woon daraja mu bàyyi leen fa ñëw bi mu ñëwee sama bureau ma ko wax sax dama ne ko maire déedéet du ma ko jël mu reetaan ne ma non cër bu ma la jox la loolu dama ciy sant yàlla bu baax di ñu sant tamit Awa c'est ma petite sœur moom laa koy woowee tout le temps. parce que bu dul la sama rakk bu jigéen Awa la tudd ma koy petite sœur te xale bu yaru la macha allah maa ngi koy remercier bu baax moom tamit di remercier parents d'élèves si seen teewaay. di remercier parents d'élèves si seen teewaay di remercier aussi sama association sama groupement bi ma àndal muy waa groupe gëm sa bopp xale yu yaru yu tee yu mën a gunge démb laa leen barki démb laa leen wax ne dama am marraine ñu ne foo jaar ñun ñu topp la macha allah cité avion gi laa laa laa dëkk.

Euh, pédagogie mom tek nako sur place mais kat yu xarañ buñ amulé jang mi du mëna soti ñoo dem ma ngi leen ñaan ngeen tàccul ma kat ci bu baaxa baaxa baaxa baax di contane aussi ci la directrice la madame la déclarante aussi parce que Fatou mi ngeen jël tek taftal ko sama ginnaw muy secrétaire particulière bu madame l'inspectrice kuy jaar mom moy buntu bi ngay jaar pour meuna dem ci accéder ci madame l'inspectrice kon loolu tamit dama ci am contenté bu baax di kontaan aussi ci sama ñaari goor yi ma teewal muy monsieur Faye Farba fay mo nek ni ak monsieur euh, Farba Faye xam naa élève wala ay élève yi parce que CF El momadou Mamadou Ndiaye la doon jangalé ya Souleymane Diallo mom té mo yoré matériel inspection académie man ma tax ñu déplacer ki mi ngi dëkk ba Grand Médine ki mi ngi dëkk ba Cité batrain mais ñu ngi déplacé wu ñëw ndax man madame la directrice maa ngi ciy sant di ci gërëm bu baax a baax dinaan xale yi nañ gën a góorgóorlu préscolaire base bi la enseignants yi aussi nañ gën a góorgóorlu parce que base bi bu buñ ko ratee c'est fini pour l'enfant donc ñoo ngi leen di gën a ñaan di leen jox courage ñu gën a góorgóorlu ci njàngale mi bu ko defee xam-xam bi gën a ñoŋ parce que gis nañ lu mu néew néew liñ defagul nii ci année scolaire bi xale yi wane nañ ko ci tari yi ñu wane fii suñu kontaan nañ ci macha allah man mi di nek sen yaay xam naa amna am yo saar ñoko fi tari lo won fi lay woon di ngang di xolaat fan lay jaar pour génne ko sha allah dañ lay di contane nañ bu baax si xaal xalé yi lañ fi def waaw sha allah contane nañ kon la oustaz xol xol li naan nañ ko li li li li li neex yëpp xaju ci cilli dañ koy yemale fi ba benen yoon insha allah contane na bu baax merci. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ku nek maa ngi lay nuyu di la sante di la ziar di la jox sa way allo allo assalamu ah, alaykum wa rahmatullah gaay dégguñu ma de wala allo allo allo allo

di ce n'était pas programmé pour me dire parole mais ça me fait vraiment plaisir pour me dire ko aussi parce que ay remerciement là, su ko neexoon du ko def kon nak awma fayam dama koy ak euh, yalla bi nga xam mo am fay mu fayal ma waaw ma ngi geureum ñep di sant ñep di gërëm samay collègue ana mo mënu ma ko fay comme ni ko waxé tout à l'heure yalla mo ñu bolé inspection lañu lañu kii lañu xamante mais dara ñaawul samay samay frères yi tamit comme monsieur Faye ak monsieur Diallo di leen gërëm di leen sant aussi si déplacement bi Marème Sey ak euh, groupe ana bi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm parents yi euh, di wax famille madame Guèye je suis très contente si euh, li ma def invité d'honneur su ko neexoon du ko def mais sant naa ko gërëm naa ko di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal yàlla na ko yàlla sàmm yàlla aar ko làq ko fu yàq eggul euh, projet bi nga xam ne projet école bi la ci kaw ci kanam rek laa ko ñaanal yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def maa ngi leen di gërëm di leen sant pour l'assistance merci beaucoup encore une fois ay awa awma ma sa fay jërëjëf ma sœur chérie merci. merci beaucoup. Euh, salaamaaleykum. ventilo bi baal ma kiiwal ma ko nii. Euh, madame tin mi nga xamné mom moy marraine bi dafa am prix buñ ko bëgg jox lan ngeen jortu ni mo wara nek fi तंगल सोकोला तंगल सोकोला तंगल सोकोला योक टिकट चुप नो योक टिकट चुप बट गे मैं इसके डिंच टिकट चुप तंगल सोकोला योक टिकट चुप तंगल सोकोला योक टिकट चुप तंगल सोकोला yokku ci ket cop tey rek mu neex waaw waaw jëlee leen ma kayit gi kayit gi un un deux et trois <laughs> alay ndeysaan ba noppi ñu jël lii teg ko ci lépp école Ali Aïcha di wane seen mbégte oh Masha allah Masha allah

nga ñëw fii ñu jox la sa prix macha allah tàcceel ma bu baax a baax a baax ya Seyda moo ñuy joxal madame Diop invité d'honneur bi loolu école bi ne nañ xeeb nañ ko baax a baax yàlla yàlla barkeel yépp incha allah ayca directrice bokk ci waaw

mi ngi koy taxawu njabootam ba bu dellusee ci école bi ñu xam ne élève bi laataa muy ñëw parent am sonn na lool ci moom xam nga am na ñoo xam ne bu seen doom waree jàngi école nañ ko war a toppatooyee day des maanaam ñoom yàkkamti nañ mu génn kër gi maam dañ koo jàppee ko xam daf leen a lakkal ci kër gi ba niñ ko war a sàngee niñ ko war a solalee duñ toppatoo ba xam est-ce que saag bi li mu war a jàngee mi ci saagam est-ce que sangu na est-ce que borosu na est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que mooy nga gis koo xam ne dafa bëgg rek débarrassé wu ci doomam ba ni mu ko war a waajalee du ko waajalee mais ki nga xam ne nag mooy meilleur parent d'élève ci école Ali Aïcha nga xam ne école bi xool nañ ko ba gis ne vraiment disponibilité am ni nga xam ne defaree na ko boppam fexe na ba doomam yi balaa muy dem école dina sonn ba bu ñëwee ñu xam ne kii kat waajal na njabootam. mooy kan yaayu Mouhamed Faye ñu ñaan ñu tàcc ko bu baax a baax a baax ñu woo ko mu ñëw yaa Seyda looy wax ci loolu. bon pour parents d'élèves yi ñu leeral leen rek parce que keroog journée sëñ Babacar Seye bi dañoo tànn dix meilleurs parents ñu génn léegi nag ñu waroon joxe prime bi tey parce que tey fallait que ñu joxe prime. léegi nag ñu daal ni léegi dañuy di parents yooyu mën nañu tànn génne ci kenn bi ñu tiiree nag moom ci boppam moom la ko yàlla jagleel kon yéen ñëpp kenn ku ci nekk tam tey bësam la ëllëg yéen ñëpp kenn ku nekk mën na am ñuy génne par dix par jour incha la ñuy ñaan yàlla waaw ok maam bu daaw meilleur parent moo doon moo doon maam bu maam Mohamed ak maam Mohamed ak Cheikh Omar ak Cheikh Omar bo ren mom yaay Mohamed Faye la sha allah yeen nyep yeen ñëpp top to sen dom yeen ñëpp a comme que nañ ko ti comme nañ ko tire turam genn lool mo waral li mais yeen ñëpp bëgg ngeen sen dom yéen ñëpp ay to sen dom jërë ngeen jëf. moom itam. photographe nag macha damay ñaan toujours yàlla na ko yàlla sàmm. parce que élève la boo xam ne bi même ci biir classe bi. moromu élève am dina soxla bic amu ko mu yor benn bic mu jox ko kooku moom mu des di ko xaar ba kooku bind ba pare muy door a bind. macha jërëjëf yaayu Muhammad sànq Muhammad jàngal alquran bu neex ci suuratu Yaasin wal qur'aanil hakiim innaka lamajnuun nee na sànq Muhammad il fait partie des meilleurs élèves yàlla yàlla barkeel te yàlla dundal ko ba mu gën a avancer ca kanam ak kanam incha allah macha allah ok Mor Mor Sarr

macha allah waaw kooku mooy yaayam na continuer yokk góorgóorlu bu baax a baax merci beaucoup moo aussi Salimata Mbacke Salimata Mbacke ok ba tey jox madame Tine mu joxal ñu Salimata Mbacke ana Salimata Salimata kaay waaw robe bu rafet la yor kay. Salimata Mbacké tamit bu travailleuse et sérieuse en classe. en classe donc toutes nos félicitations à Salimata Mbacké Mbake, euh, ban la Aïssa macha allah euh, toutes mes félicitations. yaay mu ngi noonu. koy yaay ji des nga primer sa doom rek dafa neex xale bu jëlee premier da ngeen di góorgóorlu di encadrer à la maison parce que l'on day faciliter lenseignement apprentissage à l'école vous merci. merci beaucoup je suis élève Mohamed Mohamed Faye. Allez Mohamed Bravo Mohamed, Mohamed, Mohamed Faye. Mouhamed Faye meilleur parent d'élève. ah bon. je la Mohamed, Mohamed là tantam là. <laughs> bàjjenu Mouhamed <laughs> bàjjenam laa tantam laa papa moom maama Mouhamed moo sama directeur d'école monsieur Saliou Guèye macha allah. jërëjëf yal na yàlla barkeel ma jox madame Diop mu jox ko ko macha allah. photographe. Maguette Koulibaly mu jox ko. yaa màgget kaa joxal ñu ko <laughs> ana madame Diouf lay ndeysaan ah ma woyal ko ma woyal nee na madame euh, Cheikh Cheikhu madame may ñaan ngeen tàcc ko ba ba tànt bi riir ma woo ñu woo madame Awa Diallo moom itam mu ñëw. ak yàlla woo ba tey ci. woo madame. <laughs>

泣いてる泣いてるて